nañ leen. parce que sinon dañuy dañuy dañuy dem sóobu ci gaal gi. Mhm. boobaa nit à tout moment mën na waññeeku dëgg la te Sonko mi képp ku yàlla jox xol xel boo ko toppee léegi nga wàññeeku. Mm. waaw yàlla baax na euh, sànq yaa ko tudd tey mu ngi euh, fale ca Saint-Louis ki ko fa nara a dalal euh, maire bu Saint-Louis di Mansour Faye di rakk ci Marème fay sàll donc moom da ko teel a xamal li mu koy teeroo nee na tapis la koy lalal donc. Ah, bëgg rouge de. Hmm? daa bëgg rouge de moom. loolu yi waxuma ko dama ne nee na tapis rouge la koy la waaw moo tax ma ne daa bëgg rouge jaral na ko lu ne lu xonq moom da koo bëgg tubaarkàlla sama xaala xii na moo tax ñu dem ba hôtel Azalaay ne fa faaj dëkk mu ruus ba bëgg a dee suite beauté rouge tapis rouge robu jabar ja ruus lépp rouge aka bëgg rouge koppati bu rouge <laughs> léegi nag. Euh, maa ngi fàttali Mansour Faye ba Sonko ñëwee bureau am hmm. di ko ñaan audience pour mu rece pour Macky Sall recevoir ko ci cas bu Ndiaye. Hmm. Mansour Faye ba mu ko waxee Sonko dane waxuma ko musuma faa dem. yàlla dogal benn audio génn buy wane ne demoon na fa léegi nag nee na ca Mansour Faye la jëm ndar. na Mansour Faye wut wut ay caméra wut ay ay audio wut ay éléments sonores yu mën a enregistré. wut ay papier yu mën a bind luñ fa tënk mu bind ko enregistré ko vidéo ko denc ko jamono day ñëw. Hmm. sañ na faa jël ay mesures jiiñ ko Mansour Faye comme temps yi moom dëkk bi ci luy baax la Ousmane moom képp kuy diggalanteeg moom bindal baa nga audio téye loolu daal laam lu may wax Mansour Faye di ko nuyu bu baax luñ fay diglante daal na leer wala mu am i témoin wala mu def ko place publique bu mu tëju ci biro di wax de teel naa ko alerté nag

ñu koy loolu leen seetaloo ñu seetal ko te budget ngi fi bu leen fay nañ leen fay ñu seetal ko moo gën. Hmm. sëñ Cheikh nee na fu budget nekk leneen lu fa waay def rek boo moytu dañuy lekk budget ba comme budget bu mu ngi fi pour jëm ci wàllu set ak setal. Hmm. nañ ko génne rek ñu dem setal yi loolu la yii yëpp jaru ko perte.